monsieur président maa ngi lay nuyu monsieur le ministre de pétrole dégg na maa ngi lay nuyu di nuyu ministre de finance ministre de travail di nuyu sa collaborateur yi ngeen àndal di nuyu sama collègue député yi monsieur le ministre ginnaaw bu la félicité ci nomination bi la def jëlee la si ministre de l'intérieur yóbbu la ministre de pétrole de l'énergie jox la budget boo xamante c'est un budget colossal ça fait parce que deux cent trente six milliards crédit de paiement deux mille vingt Il y a 316 milliards de francs CFA que 79 milliards de francs CFA. <laughs> en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, c'est les meilleures augmentations de tous les ministères, hein, comme, pourquoi. Mais en tout cas, en tout cas, nous les daal di la encourager ci euh, liggéey bi nga xam ne war liggéey pour foofu. mais ñun nag dañoo am ay quelques questions avant ñu ñëw si yenn kii yi ministre dañoo gis maanaam jamono yi si ginnaaw BP. def benn communiqué ki nga xam Petrosen wane ne BP génn na ci li nga xamante ne mooy Yaakaar Teranga te ku ne xam na ne bloc de Yaakaar Teranga mooy fi Sénégal sukkandiku woon pour 2023 ak 2024 pour que jël li nga xamante ne mooy montant bi ñu tàmbali exploitation pétrole bi pour que dugal ko suñu budget national comme BP génn na est-ce que maanaam léegi budget bi li nga xam moom la ñu waroon espoir ci 2024 dañ koy maintenir waa wala déet est-ce que bu BP génnee aussi kan moo koy remplacer parce que gis nañ Cosmos te Cosmos ku ne xam nañ c'est entrepreneur maanaam entreprise bu ndaw la amul capacité bi nga xamante ni moom la BP am loolu bëgg nañ si ay leeral beneen bi mooy gis nañ BP moomu noonu bi mu génnee amul benn sars boo xamante ni ak benn maanaam loo xamante ni ay ay amaan la boo xamante ni war na ko te gis nañ boobu mi ngi si su mi ngi ci Afrique di wër lan mooy war a tey BP génn ñun ci li nga xamante ni mooy yaakaar tranga ba pare rest ci li nga xamante ni mooy bolog bi ñu bokk ñun ak waa Mauritanie bëgg nañ si ay questions yu gën a leer ñaareel bi monsieur le ministre li nga xamante ni moo jëm ci Euh, signature de contrat bi nga xam moom la Sénégal signé diggante Sénégal ak Maroc ak Nigeria pour que maam ñu jëlee tuyau boo xamante ni day jóge Nigeria jaar Maroc pour tuyau gaz ñëw ba nga xamante ni mooy Sénégal est-ce que signature boobu dëggal wala du dëgg parce que lan la Sénégal war a gagné parce que jàpp naa ne Maroc bi nga xamante ni amul pétrole amul gaz léegi bu fekkente bokk na signature boobu pour que maanaam moom ñu mën a espaat loolu bëgg nañ si ay lu jëm ci mbirum euh, euh, Sénégal nag moom li si wax bànn man mii wax yow dund naa si maanaam lu méttee métti parce que wax naa ko keroog fii nii si ginnaaw mais facture Senelec dañoo seer parce que man mi wax ak yow dan ma indil facture Senelec deux cent six mille cent francs même pas un mois ñu indiwaat ma beneen facture boo xamante ni deux cent soixante quatorze mille francs CFA la te même kër gi la te benn appart yokkuwu si te la doon tàkk mooy tàkk muy sama kër gi nekk tubaa jàpp naa ne comme man maa koy dund askan Sénégal yi ba pare ñaareel bi monsieur le ministre des finances maa ngi demande solennellement ñun député yi dëkk département Mbacké juróom-benn député la parce que li ñu gis loi de finance bi bi mu ko sëñ Mountakha laajee barki démb mais nee naa ko 8 milliards francs CFA moo si nekk bëgg nañu toog nga recevoir nu audience nga wax ñu 7003 milliards yi nga xamante ne mooy biir Sénégal lan moo si jëm Touba ñu mën ko sax xam loolu maa ngi lay audience boobu ñun juróom-benn député yépp man maay porté parce que maa nekkoon tête liste bi man maay ànd ñoom pour ñëw si yow boo ñu accepté nga ne ñu Touba lii moo far dem fii lii moo far dem fii lii moo far comme ni ñu ko defal woon bi nga xamante ne mooy bi ma demee ci xaw Sadio Moussa damaa dem ni ko Moustapha Ba nee ma 2023 moo jëm si ndox mi 7 milliards 5 moo jëm ci assainissement bi léegi léegi li loolu bëgg na aussi nga defal ñu ko pour que mu gën a leer en tout cas di féliciter aussi de la direction générale de Sénélec parce dafa am loo xamante nit ñi mun ko wax. baadoole yi dañoo sonn da gis benn kër boo xamante ne wala benn dëkk boo xamante ne ña fa dëkk ay maanaam du ñu ay néew du doole lan mais dañuy jël tey ji maanaam optation bi muy courant bi mu romb dëkk yooyu dem si benn dëkk kilifa diine te courant lu wàcc foofu noonu te kenn ñi mu ko wax da ngay gis tey ni mu toll tey boo jëmee ci banlieue bi mooy ci li nga xam ne wër Touba amuñu courant te da ngay gis benn kër kilifa boo xam ne dañuy jë courant bi yóbbu ko ba sa àll ba mu wër këram wër ay toolam wër foo xamante ni fenn fu foo xam day leeral àll bi loolu tegul si yoon wala war na ko eh, régler muy problème boo jëlee tey courant problème mu Touba parce que tey boo jëlee euh, moo nanguwul indi courant bi foofu lan mooy problème bi boo jëlee courant dañoo am problème bu ndox te bu ñu waxee ñu ne Sénégal bi nga xam moo war a indi courant bi nangul indi courant bi parce que waa OFAC daf leen yore xaalis nangu leen a fay kon population Touba bi ñoom ñooy xala sonn te loolu bëgg na aussi ñu régler ko nu mu gën a gaawee bu fekkente lu war a fay la bu ngeen ko mënta fay man mën naa génn un milliard jox leen pour ñu fay ko pour Touba mën a am ndox sa wér ma jërë ngeen jëf asalaamaaleykum